site officiel bu France bi nga xam ne ci lañu publier ñëpp ñu renoncé ci seen nationalité 2016 ba tey 2006 ba démb ba ñuy def vérification bi turu Karim Wade nekku ci. tey jii ci àllarba ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 2024 nañ ko signé décret bi premier ministre Gabriel Attal moo ko jël di jëmmal renonciation à la nationalité française bu Karim Meïssa Wade boobu nationalité taxoon république des valeurs dugal recours conseil constitutionnel ngir candidature am ba tey jii ñoom ñu gis ni mbir mi na. décret bi le 16 lañ ko def le 16 la ko premier ministre def décret ñu publier ko tey le 17. te Karim Wade ne woon na renoncé na candidature depuis renoncé na nationalité depuis 2018 et Karim Wade déposé na déclaration sur l'honneur depuis le décembre. déclaration sur l'honneur boo ko defee mu nekk déclaration sur l'honneur mensonger dañ la war a poursuivre parce que booy déclaration de l'honneur ci instant yu ngi koy def da waat ne li may wax nii dëgg la. bu nu sukkandikoo ci Mamadou Aw lii ñuy xeex dafa dëppoo ak seen taxawaay ci politique. amul pouvoir amul opposition ndax constitution Sénégal ñëpp ci yem. muy opposition muy pouvoir muy baykat bi muy sàmmkat bi muy ndaw ñi muy journaliste muy société civile parce que charte ndey réew mi moo tënk ñëpp balaa ngay doon woy politique bala ngay doon woyu balaa ngay doon journaliste balaa ngay doon woy société civile citoyen nga ba pare te constitution moo la tënk donc ñun képp kuy salfaañi constitution boobu dañuy taxaw ñu ne loolu en tant que posture républicaine du ñu seetaan kuy salfaañi suñu constitution. conseil constitutionnel jàppagum na ñaar fukk ak benn ci ay dossier de candidature pour élection présidentielle bi nu jëm ànd ak ni pré campagne bi ubbi na waxtaan wi mi ngi des di gën a jëm ci bokk ci yooyu élection.